asalaamaaleykum nuyu nañ leen bu baax amee internetu Dakar Buzz di am mbégteeg ca waxte saa su di janoog yéen ci buzz de la semaine màggalub Touba tub 2020 bi laa koy doore ak rek euh, ndigal lu bàyyeeko si xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom nag nee na euh, daara alxuraan mboolem euh, dayra jàkka yi ba ci jumaa yi nañu amal rek ay jàngu ba alxuraan jiital si rek yéen gi jéggalu suñu borom waaye santale Serigne Touba suñu borom bu weesoo loolu nag nii nag dafa doon daara gu mag mën nañoo def rek ñetti kaamil suba si bëccëg bi ak rek ci ngoon gi bu dee daara bu diggu doomu ñu def rek ñaari kaamil suba ak ngoon bu dee daara gu yem li ni mel nag sëriñ bi nee na nañu ko door si dibeer bu njëkk rek ci lii di tamxarit bi ba ñu ne suba la màggal gi bu ko defee rek suba suba màggal bi moom sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke dal di def rek ñaan si lu ñeel lépp la nga xamante ne moom moom mooy lu gën ci askan waay waaye it si mbas mi nga xamante ne nii ñu ngi koy jànkuwanteel ak tolof tolof yi bu ko defee rek mu amal si ay ñaanam bu weesoo loolu nag sëriñ Mountakha Mbacké ni moo diglee rek li nga xamante ne nii mooy jàngu ba alxuraan yi noonu la diglee tamit ñu siy amal ay xasaayid xibaar bu nakkar yi te tiis daal dinay dal rek eh, ci ak tiis bii di Adja ñu gën koo xam eh, ci série Adja eh, moom nag ki nga xamante ne nii mooy waajuram bu góor ñu koy wax Amadou Deme moo daal di rek génn àdduna xibaar bi nag moom ci boppam Adja moo ko fësal di sàkku rek ay ñaan ngir ci waajuram bu góor boobee nga xamante ne nii moom moo wàññeeku si noonu sax mu ne ñoom ay doomam ñu ngi door a am tey lu leen métti ñu ngi koy mastaw bu baax a baax di ko koy jaal tey ñaanal waajuram bu góor góor boobee fa mu jëm gënal ko fa mu jóge leneen ma dem rek ca diwaanu Bambey addu rek ci musiba bu fa am ku ñuy wax nag Youssouf Faye di élève rek ci classe bu terminal du def li nga xamante ne nii mooy épreuve baccalauréat 2020 bi gannaaw rek ba mu defee accident de travail moom nag daa ñàkk bakkanam si ab chantier bu mu doon rek liggéeyee comme maçon ci waxtu wi nga xamante ne nii rek deful dara benn nag dal moo dal di màbb rek ci kawam li ni mel nag mi ngi am ci alxemes gi. Eh, ca Bambey eh, ca ISFAR ba mu doon liggéeyee moom nag eh, mi ngi bàyyi si ginnaawam ab soxna ba nga xamante ne nii rek mi ngi ko takkoon ci rek année scolaire bi moom ak soxnaam suuf si sax ñoo bokkoon benn école ba ñuy jàngee yal na yàlla yërëm ko. su ma noppee ci bag bi damay àddu rek ci CFEE bi démb ndongo ya ngi doon nekk rek si seen ñaareelu bésub examen waaye nag taw gu rëy gu wàcc si si Dakar jural na leen ay tolof tolof gannaaw ba ñu nekkee woon si situation bu métti yenn école yi fees dell ki ndox la defoon bokk na ci école bu Géejawaay ndongo ya sax ak surveillant yi yëpp seen tànk ya la ñu sóob sa biir ndox mi rek di def seen examen ñoom ndongo ya mu doon nag situation bu métti lool doy waar comme noo leen di gisee noonu. kawteef ab soxna moo xam le lu doy waat métti lu mu ne sax moo ko gën a métti ci àdduna moom nag nee na dafa amoon rek benn far ba nga xamante ne ni da ko trompé ñu dal di am doom bu góor nee ne nag waajuram bu jigéen moo ne rek far ba bu mu ko takk ndaxte rek baaxul dem tamit gisee giseek ña nga xamante ne ni ñoo di ay euh, parent far wa ne rek bu ñu ko bay mu takk doomam ju jigéen joojee ndaxte baaxul ba lu lu weesoo nag yemu ca yaay ja dafa wëlbatiku rek di doomam joojee ba sax jëlee ca ëmb moom it mu doon nag mbir mu doy waar yaay ja sax mu nga ca juróom-ñeent weeram bu ñu sukkandikoo ci soxna si si noonee dal moom doom ja mu ëmb ak rek doom ja doomam ja am ñoo bokk rek benn baay doon nag mbir mu doy waar loolu te métti ba tax rek xale bu jigéen bi di woote di koy wax rek ci rajo yi naan rek moom lii ni mel métti na ko lool mu koy dund jamono jile division spéciale de cybersécurité daal di ne teg loxo rekk lu tolloog juróom-ñaari doomu aadama nga xam ne euh, bokk na si rek ñaari xale yu jigéen yoo xamante ne ni ay mineur lañu ñoom ñëpp nag di ay rek euh, doomu autorité ñoom nag euh, ñu ngi leen jàppee si diggante Dakar Thiès ak Saly ñoom ñooñee nag ay chèque ak i carte bancaire rek la ñu doon sàcc lépp nag ñu xayma ko si téeméeri million gannaaw rek ba ñu doon retiré ay koppar yu takk lool si compte victime yi eh, bu ñu nag xayma lépp juróom-ñeenti chèque la eh, juróom-benn yi ndakaaru eh, ñaari yi ca Saly ak rek benn bu ñu signé Thiès la ñu jëfandikoo rek si montant wu téeméeri million si suñuy koppar ku nekk nak daa amoon rek rôle bu muy joué si seen gang googee DG wu ab boîte nak bu siiw moo déposé benn plainte contre X ngir vol de chèque ak rek tentative de retrait frauduleux ci noonu nak la enquêteurs yi rek tàmbalee di amal seeni liggéey ba ñu ñu defee nag seen investigation la ñu nag jàpp si diggante fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom-benn si weeru août juróom-ñaari nit yoo xamante ne ni bokk na si xale yu jigéen yooyee nga xamante ne ñu ngi toll si ñaar nekk ay mineur si diggante Dakar Saly ak Thiès. ca Mbour la jëm addu rek ci kawteef bu ñëw fa nemmeeku rek ci guddeeb alxemes si ay booru 3 heures du matin ay waay nag ya nga xamante ne ni ñu ngi yoroon ab 4 4 ñoo waat fees ga nekkee foofee ca Mbour ñoom nag kat kat bu weex sax la ñu yoroon ba ñu demee nag la ñu taxaw rek si mu benn bàmmeel waaye nag ba leen gardien ya gisee rek la ñu dal di daw wëññeeku si ëllëg sa nag la ñu ko yëgalee rek commissaire police ba si noonee police scientifique bi brigade d'hygiène ak rek sapeur pompier yi daal di fay dem ngir xooli ana lañ lañ fa doon def ñu daal di sax fuyee bàmmeel ba ñu taxawoon si noonee nag ak bettel lool ñu daal di fay rek xamante ne nii rek euh, ñu ngi ko féetalee bëj Saalum ak tànk yi tamit ñu daal di koy féetalee bëj gànnaar bu ñu sukkandikoo ba tey si xibaar yi euh, si biir gémme ñu nag ba sax la ñu defoon rek ay xaatim dal di rek kook la nga xamante ne ni morceau bu ñuul la si boobulee xibaar lay desandeeg yéen ba tey ak rek bopp nag bu ñu lekkee ay tànkam ya ñu suul ci armée tefes nga nekk ca Mbour ñu doon ca rek euh, def xaatim ba nga xamante ne ni ñu ngi ko dugal euh, ca biir gémmiñu euh, nag boobee ba noppi lay mesee ko ak morceau bu ñuul kukk mbir mi nag tàmbale naa feeñal ay secret benn féticheur rek moo dal di toj yax bi moom nag la mu xamle rek nee na loolee ñu def si guddib alxemes jàpp ajjuma bu ñu sukkandiku ci féticheur mbir mi mi ngi bàyyeekoo rek si cadre bu mag ba nga xamante ne ni mu ngi si administration sénégalaise bi ngir rek euh, gëlëmal njiitu réew mi Macky Sall moo ko tax a jóg ba rek euh, bu mu ko dàkk wa ilaa rek ba rek bu mu ŋàng euh, lenn la nga xamante ne ni ñu ngi rek bañ mu jëm ko maanaam daal benn mbir ba nga xamante ne ni bëgguñ njiitu réew mi Macky Sall addu ca loolee rek moo tax a jóg ni si noonu sax loolee di mystique ka nga xamante ni féticheur la nee rek xam-xam bu ñuul mooy faral di def li Euh, soo defee benn mbir bañ ñu àddu si euh, nga dem rekk def ko ci armeel wala rek ci benn bàmmeel euh, bu ko defee rek fokk rek néew boobee tëdd jógul wax kenn rek du mësa ngaang li ni mel waa ma jël roplaan dugg Denver nekkee ca diwaanu États-Unis àddu rek si juróomi doomu aadama yooyee di jibi jol ak famille yam ya fa ñàkk seen bakkan ci lakk-lakk bu ñu ne rek loxo jógu ca police bu Denver nag mi ngi wër jamono ji ñetti doomu aadama yu masque wu ya nga xamante ne nii njortu nañ nee ñoo daal di sabab rek lakk-lakk boobee faat juróomi sénégalais yu bokk rek benn famille euh, foofee ca rek euh, Vallivranche ba ñu nag euh, defee ñaawteef bi ba noppi ñoom ñett ñoo ñee ñu ngi rekk daw si ab oto bu sombre takk rek si seen kanam yi ay masque yu weex si noonee nag fësal nañu sax mardi si ngoon vidéo boobee ñu leen gisee ak seeni masque yu weex si seen kanam yi ab neexalu nag 14000 dollars rek la teg si taabal bi ngir rek bépp xibaar bu dëppoo ak incendie criminel boobee ñu fàttali leen rek ne ki mercredi la ñuy indi néew juróomi sénégalais yooyee fii si seen réew euh, si rek jeudi bi ñu daal di leen di denc ca Yoff ma wax ci cambriolage boutique chinois bu nekk rek ci allée centenaire bi policier bu ñu ràjje nag di Mohamed Gassama di rek chef gang ba da doon jéemati rek daw génn ca kaso ga ànd ak rek ab complice bu ñuy wax Adama Diouf euh, mu ñu tee rek ngir rek mbirum yamba bu nekk doon nag vigilance garde pénitentiaire yi seen coup boobee dal réussir benn bruit nag moo leen dal di yoole si noonee nag la garde yi rek jógee di contrôler dal di leen di gis rek ñoom Mohamed Gassama ak aadama Diouf di jëfandikoo rek poubelle ya ngir mën a yéeg mur ba waaye nag la ñoo bëggoon a def antuwul ndaxte rek ña nga xamante ne ni ñooy garde yi dañu leen day dañu leen mujjee teggaat loxo du nag gulleet ndaxte rek kii di Mohamed Gassama di jéem a daw euh, jéemoon naa tamit rek daw rëcc ca prison ba euh, lu tolloo woon nag benn fan ci weeru août. ab ministre njiitu réew mi yi Sall bu ñu xamlewul rek turam euh, la ñu xamle rek ni dafa jënd benn kër ca quartier rek résidentiel bu Point E kër ga nag la mu ko jëndee toll ni si koppar gu tàkk lool ndax mu ngi tolloog rek juróom benni téeméeri million si suñuy koppar maanaam rek lu ëpp genn wàllu milliard ma maadu ci scandale boo am rek ca añam ki nga xamante ne nii nag mooy Souley Ba di far ba Ngom mi nga xamante ne ni moom mooy géwélu njiitu réew mi kii Sall moom rek la doomam dal di faate nit ca añam bu ñu sukkandikoo nag ci eh, directeur publication gu Kewlu moom nag nee na eh, xale bu góor bu ñuy wax Abdoul Sam eh, la rey moom nag Abdoul Sam si ay fan yu néew la waroon rek feete anniversaire am di am fukki at ak ñeent si noonu nee na dafa demoon wutali ak ay moromam mu joteeg rek eh, ki nga xamante ne ni mooy xale ba nga ne ba nga xam ne ni mineur la aussi di doomu Souley Ba eh, nee na rek ñu jotee ba mujjee si xeex ba ñu leen attee na la doomu Souley Ba daw rek seen kër waaye boobee eh, paaka rek la jëli ba mu ñëwee rek la ñeneen ña seen morom yi ne Abdou dawal Abdou xamul lu muy daw mu daal di gestu rek kii di doomu Souley Ba ba daal di koy bojju paaka ba ci xol Abdou tàngoor gi jàpp ko mu daw topp ci kawam ba ci buntu kër xale ba sax la daanoo rek ñu yóbbu ko kër docteur fekk rek mu ñàkk bakkanam nee nañ nag Abdoul eh, nga xamante ne ni waajuram bu góor dafa ñàkk bakkanam ca ab accident eh, ca atub 2008 eh, ña nga xamante ne ni ñoo di ay magam amuñu doole si noonu la ñu jàppee doomu bras droit Farba Ngom boobee waaye nag nee nañ ba ñu ko defeeree dañoo ko rek dañoo jaay doole ba tax rek ñu génnee ko moom moomee sax xale ba nee nañ nekkatul añam dañ ko indi fii si Ndakaaru si noonu nag ki nga xamante ne ni mooy directeur publication ngi Kewlo di ñaawlu lu ni mel ne rek Abdoul Sam ñàkk na bakkanam ni te rek ay famille amuñu doole waajuram bu góor génn àdduna ña nga xamante ni nag ñoom ñooy suley ba di rek adjoint Farba Ngom moom ak Farba Ngom yëpp jaay doole dal di rek génne ki nga xamante ne ni mooy seen doom Jacob Faat kenn ak moom amul kenn rek ku topp si ay mbiram ba tax rek mu koy dénoncé. aywa Madou ci xibaar bu nakari bi Ibrahima Ndiaye maam Yaxi Lalo di Ndiour Mamadou Mohamed Ndiaye taskatu xibaar ca groupe Futur Média bu am di Moustapha Ndiaye ancien Seneweb nekk jamono ji Ecotra ak rek Babacar Ndiaye bu info réew mi moo dal di ñàkk bakkanam ajjuma ci ngoon bu ñu sukkandikoo rek ci kenn ka nga xamante ne ni daal di ne jege famille bi moom nag nee nañ rek encadreur la woon si lu ñeel métier ba tasu ba xibaar doonoon si ko mag lool moom nag ca diwaanu Touba rek la ko denc si noonu rek ñu ngi fa mu jëm gënal ko fa mu jógee. ba tey rek ngeen di lu buzz de la semaine maa du jëmale ci leneen Kati Chimère di actrice ak rek Abdou Karim xurum xaq daal dina ñuy rek jokkalante ay kaddu si lu ñeel série bii di infidèle si noonee Kati Chimère ne rek bu ñu jël infidèle jagleel ko lu bon ndax rek du lu bon ay yeete ñi ngi ci biir te ñu koy joué tamit ay nit la ñu njëkkee si moom Kati Chimère te am na ay valeur am ay doom ak ñeneen ña nga xamante ne ni tamit ñu ngi ci boobule film ba mu ca noppee nag la ni film euh, nga xamante ne nii dañu koy tere eh, ku amul fukki at ak ñaar eh, ko ku toog bàyyi sa doom rek eh, muy seetaan li nga xamante ne ni moo di seen série boobee sa doom bornul yaa ko bàyyi mu def ko ndax moom moomee Katy Chimère bi nga xamante ne nii am na doomam am na juróomi at moom moomee du ko ba rek sa doom boobee am juróomi at dina am rek fukki at te image ya nga xamante ne def ngeen ko du dëñ ba faw kaw si noonu nag euh, kii di Abdou Karim Gueye xurum xàkk ne sax merewul ñu joué film bi waaye rek état bu Sénégal rek la dal di mere ndaxte rek daa am CNDA euh, mi nga xamante ne ni ñu ngi leen di fay te liggéeyuñu ndax ñoom ñoo ñëwee rek waru nañoo rek seetaan bépp film laata rek muy génn dal di am partie yu ñu censuré si noonu mu ne sax boo demee ca réewum Chine am na rek loo xamante ne ni boo ko tappee si internet bi comme ay x ak yi ni mel euh, du rek E, bindoo yow yaay kan ba rek uh, sa sa dante d'identité nga door see am accès si noonu nag uh, mu ne rekk moom Abdou Karim Gueye ay lobby ñoo nekk ci ginnaaw loolee yëpp. Euh, ci boobu lee mbir lay desandi ba tey si euh, diggante ONG Jamra ak rek série bi di infidel guerre bi waajagul a jeex gannaaw arbitrage euh, ñi nga xamante ne ni ñoo di waa conseil national de régulation de l'audiovisuel ñu koy wax rek CNRA Mame maxtar gi ak rek ñeent fukk ak juróom-ñett ñooñoom yamu àndal ci boobulee xeex daal di dañuy déposé waat ab plainte ni ki alxames ci fàttali ma maxtar gi ak ñooñoom ñooñee nag déposé woon nañu plainte CNRA ngir dénoncé lu ñaaw la nga xamante ne nii ñu ngi koy joué si téléfilm boobee di infidèle waaye nag daa mel ne rek boobee ba tey ah, dañu leen dëkk fanaanal ndaxte rek la ñuy joué soppi wuñ ci lenn waaye nag ba ñu déposé seen seen plainte boobee tax na rek ah, ba ñu rek tegaloon ay conditions seen TV ba ñuy dawal boobu série xibaar bu neex daal dinay tàbbi ci acteur bii di soo moom nag daal dinay jël soxna ah, samedi ba li ñu génn daal di génn rek ci rangu célibataire yi soxna soosee nag ngeen di gis si photo bi la jël soxna moom moomee di wuyoo si turub Adja Astou mi ngi rek euh, nekk ca réew États-Unis équipe Dakar Buzz yëpp ñu ngi leen di souhaiter heureux ménage leneen procès Mohamed Niang bi daal dinañu koy jeexal tribunal grande instance euh, bu Diourbel daal dinay teg rek si ndodd wëykat boobee Eh, di soppe ba cantal ko ni ñaari weeru ba kaso ci alxames gi eh, nag la taxaw rek eh, ci kanamu àttekat yi ngir rek lu ñeel délit abus de confiance soxna sama doon nag bëggantal nekk ca réewum Italie moo ko joxoñ baaraamu tuuma rekk ne daa détourné benn million am ak genn wàll te bañ ko àttee ba noppi lu ñu firndeel rek moo di kii di Mohamed Niang moo def loolee ñu koy toppee bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi njëg woowee nag faatu faatu bi di koy réclamer benn taalibe ak rek collaborateur ndem si yàlla Serigne Saliou Mbacké moo ko mujjee fay Madou jëmale ci mbirum Fama Thioune gannaaw rek rumeur ya nga xamante ne ni jotoon nañu ko euh, si vie privée ma daal dinañuy am rek ay xibaaru Fama Thioune ak xibaar bu neex lool moom nag daal dinay am rek doom bu góor talaata bi ñu génn ca Paris bi nga xamante ne ni euh, def na fa rekk ñaari at ba mu fa nekkeek léegi dëkk fak euh, ki nga xamante ne ni mooy borom këram di frère Kumba Gawlo Seck yàlla na doom ji dund tey barkeel jaara bu a nekkoon candidate ci seen petit gallé daal di nuy fësal ay photom yu taaru ci réseaux sociaux yi si yooyu les photo nag a mel ni rek jaara dafa am ci lu mu nekk tax rek ñu samp ab laaj ne rek lan la jaara bu Thiès di waajal jamono ji xibaar bi nag daañu ko toppandi ba xam la ca biir aywa ma addu rek ci mbirum Bass Thioune moom nag daal dinay tontu rek ña koy critiquer ci collinam naan sax féeg la moom nag Bass Thioune ba nga xamante ne ni dafa yor soxna ba am ñaari doom. Faramareen bi di Wally Ballago Seck daal dinay fësal mbébétam rek ci yonent bu tedd bi Seydina Mohamed donte sax moom la tuddee benn doom bu gër ba ko yàlla dënkagum Wally Ballago Seck daal dinay xamle sax ne rek bu amoo nit lu tolloo ko juróom-ñaari doom yu góor ñoom ñëpp rek yonent bu tedd bi Seydina Mohamed la leen di tuddee. ba tey rek ci mbirum Faramareen bi di Wally Ballago Seck waaye bile yoon ak moom ji jigéen jii di Momy sekk eh, moom nag daal dinay surprendre waajuram bu góor di Wally gannaaw rek ba ko Wally laajee lu tax di di déglu rek moom eh, Momy nag la mu ko tontu rek moo di eh, moom papam sénégalais la di rekk def musique waaye daal moom Momy sekk comprendre rek lenn la ñuy wax ci seen musique yi moo tax rek du koy déglu loolee sax tax rek ba waajuram bu góor di Wally Seck ne Momy da ko rusloo tàggat yaram mbirum euh, Pape Bouba Diop di premier buteur euh, sénégalais euh, ci coupe du monde la koy doore ak rek ci lu mu nekk léegi gannaaw nag ba mu defee carrière bu am solo ci lu ñeel football Pape Bouba Diop mi ngi rek passé du temps jamono ji ak famille am di gérer ay mbiram nga xamante ne ni rek bokk na ci projet yu muy liggéey ngir rekk réaliser ko ci gox ba mu sokkee ko di rek Rufisque di lu am solo lool mbirum football ci ab interview ba mu doon def ki nga xamante ne ni moo di Papis Demba Cissé daal dinay xamle ay ambition wam nga xamante ne ni du leen lu dul rek dimbale jeune talent sénégalais yi ba ñu mën a rek euh, réaliser seeni ay rêve di doon ay professionnel moom nag Papis Demba Cissé ab académie de football rek lay ubbi moom nag nee na projet boobee nekk si xolam rek la bëgg daal di mettre en place fii Sénégal nee sax jënd na terrain yi ba gisul rek lu dul tabax ko a dëggal seen ba noppi rek jox leen chance euh, ngir rek ñu ba ne ni na nag dana def seen disposition bépp matukaay comme Europe ndaxte nee na moom ba mu nekkee jeune ak ay ñoñom dañu doon faral rek di football ci mbedd yi ak ay ya nga xamante ne ni des a mu ne dafay jéem rek joxe la nga xamante ni moom la ko football apporteel mu daal di koy rek euh, séddoo ak ña nga xamante ne ni ñooy ndaw réewam yi nga xamante ne euh, dañoo am rek yaakaar ci football. ancien joueur équipe nationale du Sénégal bi di Souleymane Sané nee na rek nañu jéem a gagné coupe d'Afrique bu ñuy xaar ay at ci noonu nag mu ne sax yaakaar na ni dina gis rek Sénégal yëkkati lii di coupe bi laata muy génn àdduna ba loolu weesoo nag Souleymane Sané daal dina yokk rek si ay kàddoom ni am na joueur yi ngir rek ñu gagné li ni mel ndaxte am nañ ay joueur yu mag yoo xamante ni dañuy jouer ci ay club yu mag lool laata sax muy naan bu ñu terrain bi mën nañoo rek ñàkk doon ay xarit waaye nag si biir terrain bi dañoo war a doon benn ba tax na rek dañoo war a soppi euh, mentalité bi nga xamante ne ni moom la ñuy demee xàccandoo dóorandoo mu xamle ko moom ancien joueur équipe nationale bu sénégale bii di rek Souleymane Sané. ca diwaanu États-Unis ab basketteur sénégalais moo disparaître rek si làkku Montana bi euh, moom nag def na rek ñeenti semaine ba mu disparaître ci làkk boobee euh, si noonu nee nag làkk ba nekk si téeméer ak ñeent fukki tànk boo koy rek natt ci noonee soxna sami bëggantel di sax tubaab ak rek famille yam si boppam jaaxle lool police nekkoon ca seet ma ci ajjuma ji nag lañu ñu gis néewam moom moomee di wuyoo si turam du njaay ay atam toll si fukk ak juróom-ñett ñu ngi gisee nag néewam ca lag boobee mu doon nag mbir mu doy waar te métti neexal bu duna mi ngi rek xaar jamono ji joueur Paris Saint-Germain yi bu ñu amee ndam ci finalu Ligue des champions yi si kanamu Bayern di kii di ber bu 21h jotee bu ñu si amee nag ndam kii di di Idrissa Gana Gueye ak rek ñii di ay dina dinañu laal ku nekk rekk benn million euro si xayma yi war a yemook ku nekk juróom benn téeméer ak juróom fukki million si suñuy koppar. si noonu lay xuusee ci làmb doore kook rek euh, CNG ki nga xamante ne ni nag mooy njiit ma di Alioune Sarr coow topp na ko lool ñu ne rek dafa war jóge jógee ko CNG ba mu jiite ndax yàgg na fa euh, donte sax moom xamle woon na rek ne su mandaawam jeexee mu abal leen waaye rek kenn gëmu ko woon am nañ nag xibaar bu leer ci moom moomee nga xamante ne ñenn ñi dañoo ne sax dafa bëgg a force rek wëyandi di jiite lii di CNG moom nag Alioune Sarr dana jógee ko ba mu jiite fanweeri fukki fan ak benn uh, si weeru octobre uh, buy ñëw uh, moom moomee nag daal dinay dëggal boobule xibaar nga xamante ne ni si date boobee lay jeexal mandaawu ñaareelu mandaawu deux ans wa moom moomee sax nee nañ dafa bëggoon teel a dem ba jàppoon ko fanweeri fan ak benn si weeru juillet di date ba nga xamante ne nii ci la saison ba di jeex waaye nag ministre moo ko daal di rek te jiite CNG. ancien mbër mi di Boy Kaïré naroon na ñàkk bakkanam ay defkatu ñaawteef nag ñoo ko gane ji rek ca këram ga nekk ca cité Dabakh bu kër njaayloo Ndiayloo ñoom ñooñee nag nekkoon juróom-benn yoroon ay ngànnaay yóbbu nañu rek juróomi xaru laadu mam ñoom ñooñee defkatu ñaawteef yi nag ñoo ko yee seen bruit ba ñu def si noonu rek la jógee moom Boy Kaïré taal lampe escalier yi ba muy yéeg nag la ñu ko dal di rek gàttandu ak seen ngànnaay dal di tiire sax. ay balu fetel ci ñu ne nag Boy Kairé dal di rek daw wëññeeku laata bu ñu koy tiiree bal yi moom moom sa daal dina si àddu dikkaat ci mbir yi naka la demee xamle sax ne dañu ko bëggoon a faat ñu xamaloon leen fi ne rek kii di mbay Gueye dafa AVC ba loxo càmmoñ beeg tànk càmmoñ bi yëpp euh, daal di rek euh, paralysé euh, képp nag kuy yëngu si wàllum làmb daal di ne jóg rek ba mu yëgee xibaar bi ngir dimbale premier tigre de Fass bi ñu bëri nag ak ay bonne volonté yoo xamante nii rek nanguwu ñoo fësal seen identité ñoo ngi koy rekk dimbale jamono ji ak rek ñeneen ñu bëri ña nga xamante ne nii rek daal di nañuy diggee ne tamit daañu ko jàppale. mbër mii di Siteu daal dinay fësal ba yi ay photom ci réseaux sociaux yi ay photom yooyu nag soxnaam si la si rek dal di àndal ñu nemmeeku complicité bu rëy bu am si seen diggante moom Siteu ak soxnaam si comme noonu leen leen di gisee noonu. xibaar bu neex bu tàbbi rekk ci ex attaquant équipe nationale bu Sénégal rek laa koy dal di tëjee moom nag Diafara dal di dinay rek takk ñaareel ku mu jël nag ñaareel du kenn rek ku dul kii di Alicia Montero di rakku ba Juliana Montero ñoom ñaar nag ñu ngi dagg dagganal seen diggante ci alxames gi ñu ngi leen di souhaiter heureux ménage di leen di jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéen ñu doon teewlu fu waay mënte nekk di jaajëfal également Seydou mu fare woon ci camera gi di leen jox dig daje ba di prochain jaageen jëf